téléspectateurs de Baol Times TV jërëjëf ñoo ngi àndaat ak yéen seen émission question de l'heure te nag ñu am le plaisir de recevoir euh, ki nga xamante ni mooy docteur Amath Niang nekk président de l'ordre des pharmaciens du Sénégal euh, en même temps euh, docteur Amath Niang nekk koo xamante ni yow na benn mouvement politique boo xamante ni bu ràññee ko lu fi ci Diourbel yàgg naa participer ci li nga xamante ni mooy local yi di leen di ziar ñaanal ci at bu bees bi eh, ñu ko sama borom léegi fekkee yàlla may ñu muy at bu vraiment suñu mébét yaram suñu lépp loo xamante ne nii simplement yitte doomu aadama la yàlla sama borom aussi yéen waa bi may ci at mu bees bi ci ndorte bi ñu mën a ñëw waxtaanak euh, vraiment seen i internautes waxtaan ak également waa dëkk bi waxtaan ak waa di di ziare di baalu àq di baalu di baax. Mm-hmm. jërëjëf docteur Amar Niang baal leen di àq di tamit gudd fan wér gu yaram at bi ñu nekk ak maanaam bi nga xamante ni yàlla day faj aajo yëpp waaye docteur li ñu njëkk a def mooy comme que yaay président li nga xamante ni mooy ordre des pharmaciens du Sénégal temps yii ñu fi benn euh, benn saisie bu doy waar nga jiite ordre boobu noonu euh, nga di laan saisie boobu ak maanaam ordre bi fi mu ne nii seen liggéey fan ngeen toll. waaw je pense que loolu moom defe naa ne euh, lépp luñ ci waroon a wax lu ci bëree bëri wax nañu mais comme ni wax rek la répétition Eh, am na foo xam ne jaadu na ñu gën cee mën a waxaat gën cee mën a waxaat eh, dinaa ci sawar lool en tant que aujourd'hui eh, président de l'ordre mais aussi ku dëkk Diourbel hmm. je pense que li xew Diourbel la xewee ci ban dëkk ci vraiment la capitale du mouridisme muy Touba mu nekkoon saisie boo xamante ne nii dafa jéggi dayoo ay garab yoo xamante ne nii fa ñu jógee ak fa ñu jaar lépp vraiment nekkul ak li yoon santaane mu waroon jëm ci nag ci ay population yu koy consommé je pense que amul danger maanaam loraange bu ëpp doole loolu que tey nekkul benn secteur bu jóg par exemple man de l'ordre jóg rek wax pour ne ne lii nañ ko xeex nangam nangam parce que peut-être secteur bi la ñuy préserver mais c'est vrai c'est un secteur bu ñu war préserver parce que ñun la ko quand même euh, yoon jox ñu war ko mën doxal. Mm. mais également aussi l'ordre et investi d'une mission de santé publique et képp ku wax vraiment wér yaram wax faj mënoo ko wax te doo tudd garab te garab fi mu nekk nii nag dafa am solo goo xamante ne nii et nekkatul problème mu Sénégal rek ah, la gestion du médicament est devenue en fait une préoccupation universelle. Mm. c'est-à-dire adduna bépp ñoom ñoo taxaw léegi pour ne garab dafa war a nekk garab gu mucc ay garab gu baax pour que nit ñi mën a wér. donc mënuñu accepter Sénégal fi mu toll ci ak aussi li état di investir ci santé ñuy bàyyi ay nit yoo xam ni li leen préoccupé di seen intérêt ce n'est rien d'autre que de de gagner je pense que loolu aussi eh, war nañ ci mën a taxaw dénoncé ko ba pare teg ko ci yoon pour que yoon atte loo xamante ne ni également mooy li li li war a mel je pense que aujourd'hui eh, dañoo organiser société bi pour ku ne ku nekk li nga bëgg a doon fii ngay jaar pour doon ko parce que les pharmaciens aussi wàccoon nañu ak yoon fi ñu war a jaar yëpp jaar nañ fa seen xam-xam màcc ci lu jëm ci wàllu garab je pense que képp koo xamante ni vraiment secteur boobu wala métier boobu daf la intéressé nga jéem a jaar fi ñuy jaar plutôt ko jàpp ne vraiment euh, l' activité de la pharmacie euh, se résume à un simple acte de vente c'est-à-dire que euh, garab lu ñuy jaay la rek ba ku nekk war a jóg man mais da koy jaay je pense que c' est une catastrophe il a pas un danger bu bu buy guetter le système de santé et je pense que aujourd'hui man participer naa ci ay ay séminaires ay ateliers ay forums au niveau international où l'accent est mis sur justement euh, l'importance de la gestion de la politique du médicament parce que Sénégal aussi warta euh, des gannaaw et c'est un secteur à préserver jërëjëf docteur amoon ñaar yaakaar naa ne euh, dégg ngeen ko lim ñu indil ci ay leeral li nga xamante ne nii moo xew ci wàllum ordre euh, bi nga xamante ni moom moo jiite moo nekk ci bopp bi di président bi waaye docteur tamit euh, buñ génnee ci li nga xamante mooy wàllu ordre bi tamit dañ laa takkal benn ndombal tànk muy yaa nekk tam li nga xamante ni mooy président IOPS muy wàllu ordre des professionnels de la santé liggéey boobu ak fi mu fan ngeen ci toll ak lan nga ci indi loo xamante nii mën nañ ko jàppe comme innovation waaw cest Euh, lépp dafa dugg ci cadre santé parce que l'IOPS c'est l'interordre des professionnels de santé mm. dafay structure bu regrouper l'ordre des médecins l'ordre des pharmaciens l'ordre des chirurgiens et l'ordre des vétérinaires cest dire que pour que ñu gën a am benn approche hein, euh, vraiment les missions de santé publique ak les missions de réglementation c'est-à-dire que les professionnels de santé vraiment ñu nekk ay nit ñoo xamante ni face à la loi face quand même au code de déontologie nga xamante ni noonu la ñu war a ñu jéem a am ñu ci taxaw face également à la mission de santé ñu jéem a fexe ba aussi population yi li soxla ci wàllu wér-gu-yaram véritablement ordre yi taxaw ci mm. donc looloo waral ñu lënkale véritablement su suñu suñu ordre yëpp pour que nekk benn kuréel boo xamante ni vraiment day gën a taxaw pour que li solo yi ak euh, yitte yi ak euh, soxlay askan bi véritablement professionnel de santé yi ñu ci taxaw alors loolu nag bi ñu ko bi ñu tegee ci bopp bi parce que ordre ki koy jiite fa mu nekk président benn ordre soit ordre des médecins lay nekk wala ordre des pharmaciens wala des chirurgiens bien des vétérinaires yàlla dogal na ki ko génn moom moo doon jiite l'ordre des chirurgiens dentistes hmm. mais avant moom c' président de l'ordre des médecins moo ko doon jiite yàlla de novembre le 18 effectivement ñu jox ko l'ordre national des pharmaciens bi nga xamante ni yàlla dogal na aussi man maa koy jiite ce qui de conduire en aussi bien l'ordre des pharmaciens du Sénégal et l'interordre. L'interordre, c'est euh, la structure qui regroupe l'ordre des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens, etc. alors foofu aussi tamit lenn la rek quoi c'est pratiquement une action concertée une action synergique c'est-à-dire que ce qui se passe au niveau des médecins des pharmaciens chirurgiens et vétérinaires que ce soit en fait une action synergique mm. concertée et que dans le cadre véritablement de, euh, des missions de santé effectivement li nga xamante ni da ci am ay tuuti jafe-jafe yoo xam ne yenn ordre yi ah, dañ ci am ay problème pour régler ko suñu amee en fait euh, une équipe collégiale nga xamante ni on par le même langage et que nous avons les mêmes orientations et les mêmes perspectives et les mêmes prérogatives donc santé bi ci biir Sénégal dafay gën a am doole gën a taxaw je pense que looloo tax jamono yële ngeen déggoon vraiment la le point de presse nga xamante ni l'interordre teniroon na ko mm. par rapport projet de loi relatif quand a à l'homologation de la médecine traditionnelle. Je pense que aussi là suñu avis joxe nañ ko parce que quand même mënuñu permettre dans un pays boo xamante ne ni la santé a aujourd'hui quelques petits problèmes quelques petits limites. Euh, pas petit problème. trop de problème waaye ok d'accord trop de problème. et que aujourd'hui ñu bëgg a homologuer une médecine boo xamante ne nii da nga si sa maam wala da nga ko donnoo si sa si sa nijaay wala say. Euh, maam yooyu sa askan ñoo la ko jox wala nit koo xamante ne nii day ñëw di moccu di je sais pas je pense que quand même ça ne répond d'une rigueur scientifique et je pense que quand même Sénégal toll na foo xamante ne nii je pense que nous sommes tous en tout cas man personnellement je dis euh, l'Afrique regorge en fait sur le plan euh, de de de de de des plantes médicinales. Mm. c'est-à-dire que tey euh, gàncax gi ñu am la flore et la faune bi ñu am war nañ ko mën a exploiter. mais bu ñu ko exploité aussi dañ ko teg ci xam-xam boo xamante nii ëllëg su ma ñëwee ne la Mor ah garab gii wala lële day faj dafa may leer ne nekk na parce que tous les procédés scientifiques yi mën a permettre ñu mën a certifier ni lii day faj effectivement am na mais tey jóg rek sama maam doom na ma jàngal ni su ma moccee lii dina faj alors ñu bëgg ko homologué Je pense que c'est une catastrophe et une lourde responsabilité qui interpelle un État. Mm. Je pense que nous, on ne s'est pas levé pour nous opposer à un tel projet de loi, mais d'avertir, avertir, d'alerter. Parce que ces gens-là doivent d'abord subir quand même des formations dignes du nom. C'est-à-dire des mdjangi, des modules de formation, vous l'avez conférés, des niveaux de compétences, vous l'avez Parce que les garabes, ils n'ont pas de pour que nous certifions les garabes, nous devons circuler au Sénégal. parce que les scientifiques lépp lu méngoo ak garab googu saytu nañ ko mm-hmm. ba mu leen leer ni kii buñ ko joxee nit ki du ko lor bu boobaa léegi nag procédé yi tax léegi ñu jaay ko ñu respecté ko mais bu ñu bëggee rek jóg comme ça euh, bon yëfu aada la yëfu nangam nangam la je pense que jamono doxatul loolu quoi jamono day dox ci xam-xam jamono day dox ci rigueur scientifique jamono day dox ci ay preuves scientifiques donc mënatuñ jóg rek Sur la base de cela, et puis nous devons quand même homologuer le même. Et je pense que là, l'État quand même se doit de faire face à sa responsabilité. Pour se rendre compte aujourd'hui, véritablement, les risques hein, liés à la déstructuration de ce système de santé. Parce qu'une fois qu'on homologue, c'est tout un système qui va être perturbé. Mm. Tout un système. Les gens vont, ce sera la cacophonie, et maintenant c'est aux médecins, pharmaciens, chirurgiens et vétérinaires de réparer Est-ce qu'ils auront les possibilités de pouvoir faire face à tout cela Je pense que c'est des problèmes. Mm-hmm. Maintenant qu'aujourd'hui, nous, on tient quand même toute la rigueur de nous approcher des populations, de les sensibiliser sur quand même des dégâts pareils et des dangers pareils. Et, des enjeux pareils. et là aussi, ça interpelle la responsabilité de nos législateurs. C'est-à-dire les députés en charge de voter ces lois-là. Mm-hmm. Parce que vous voter, vous voter loi aussi. Donc, nous avons chambar, en quoi consiste le contenu de ce projet de loi-là. Quel est son impact sur la santé des populations quel devenir je pense que aujourd'hui suñu àll bi li fi nekk le mieux c'est d'encourager ces gens-là yi nga xam ne am nañu yéene vraiment exceller dans des recherches am nañu yéene def ay gëstu ci lu jëm ci wàllu gàncax ak lép loo xamante ni maam yi dañ nañ ko doon di fajo et je pense que dans certains pays aujourd'hui quand même c'est devenu clair moi j'ai participé à un en, Côte d'Ivoire mais effectivement la médecine traditionnelle commence de prendre véritablement des élans extraordinaires. Mm. mais ça c'est encadré par des scientifiques. Mm. mais mënuñu toog rek bon euh, l'herboriste ñu ne voilà ki euh, def des incantations ñu ne voilà qui euh, je ne sais pas c'est de la magie personne ne peut savoir mais comment en fait on peut aller vers l'homologation de cela. je pense que li ñuy wax c'est pour l'intérêt des populations. je pense que Sénégal aussi am na ay borom mi xam-xam et d'ailleurs aujourd'hui un système comme tu viens de le dire boo xamante ne nii ça ne répond pas quand même euh, à certains critères le nombre de médecins par rapport à la densité de mm-hmm. population mm-hmm. le nombre de pharmaciens tey aujourd'hui la la la la la couverture officinale l'ensemble des pharmacies qui doivent couvrir le pays hein les médecins qui doivent couvrir quand même l'ensemble du pays gox koo dem mën fa fekk je pense qu'il y a problème mm-hmm. donc loolu boo ci bëggee dolli leneen loo xamante ne nii mais nous avons demandé à ce que ce projet-là puisse faire l'objet d'une étude objective et scientifique. Mhm. ba ëllëg bu ñu koy appliqué ñun ñëpp ñu xam ne ci nii la ñuy dox. ñu gën ko encadré donc je pense que c'est un peu ça.